Euh, mi ngi tudd Mouhamed Ndaw am 13 ans euh, donc moom mi ngi quitté këram euh, domicile conjugal <laughs> ginnaaw raay la jóge le 5 décembre waaw 2020 yaayam mi ngi tudd Mam Sassoum Ndiaye papam tudd Pape Diaw donc moom ñu ngi koy war depuis le 5 décembre 2020 ba léegi ñi ngi mois de mars 2021 seen waa kër gisuñu ko mi ngi am 13 ans tudd Mouhamed Ndaw donc bu fekkente ne gis ngeen ko xool leen foto bi bu baax euh, bu fekkee gis ngeen xale bi mun ngeen ko indi fii parce que y a pas de mais mun ngeen ñu contacter wala ngeen indi ko TFM su ko defee ñu mun ko wanele ak ay waajuram parce que ça fait longtemps quand décembre ba mars gisoo sa doom war na métti bu baax ci parent am yi ñu leen di masawu. Euh, ñuy jàll ci anniversaire yi premier bi c'est happy birthday anti Khady Diobé Ba ah Diop ok Diop Ba de la part de Awa sama tante la euh, mi ngi noonu euh, euh, nekk fële ne ca America di ko wish a happy birthday anti Khady Diop ba enjoy your day sama jumelle yaay la moo sama yaay kiif kiif dañu nuroo teg teg ñu nekk ay cousine nekk ay best of friends maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram you know I love you. <laughs> joyeux anniversaire à madame Kamou Seck Ndiémé dundal lu bari. Euh, de la part de son mari tonton Kamou kii jabar tonton Kamou la. waaw ah, oui seen jabar la. suñu tante la ko suñu tante la ah? suñu tante la. waaw seen tante tonton Kamou moom gàtt gàtt suñu tonton la. <laughs> happy euh, de la part de tonton Kamou ak waa télévision Futur Média yëpp ñoo lay souhaité un happy birthday happy birthday à bébé Jazz longue vie à toi. Euh, santé, santé de fer, beaucoup de bonheur de la part de ton père, Pape Lam Sen. Pape Lam, ban sunu Pape Lam wala. waaw du sunu Pape Lam. d'accord kon beneen Pape Lam la. Euh, happy birthday à <laughs> Seydi Mohamed Gueye di Baba Gueye euh, longue vie dundal ak jàmm sutura gudd fan ak weer de la part de la famille Gueye depuis West Foire joyeux anniversaire à Mbaye Thiam de la part de euh, Baye Cheikh Mbaye moo Moulay euh, te souhaite un bon anniversaire happy birthday à Chérif Ousseynou Laye Thiam depuis Cambérène de la part de sa maman Awalay et de son papa Libas Thiam Joyeux anniversaire à Noumbé Sey de la part de Modou Gueye Keur Massar, coordonnateur GFM et de la part de Fatou Sey Pikine. anniversaire à Madame Thioubou Fama Anne. Happy birthday à suñu bàjjen de cœur Soxna Barka Mariem Fall de la part de Maymouna Sy. Happy birthday à ma linguère de Louis, de Louisine Diop, cité Pedro Alassane de par, la part de Maymouna Joyeux anniversaire à Malade Diagne. Nous te souhaitons le meilleur de la part de toute la famille de Anna. Euh, happy birthday à Adja Ndour, Madame Cissé depuis Colobane de la part de toute la famille Ndour. Cher Sadiboulo de la part de sa maman et toute sa famille. Happy birthday, cher Sadibou. Voilà, euh, maman, papa, toute la famille te souhaite un happy birthday, machallah, bébé, longue vie toi. Happy birthday à Serigne Fallou Dansokho. Toute la famille te souhaite une année de prospérité, particulièrement Awa Diallo. Joyeux anniversaire à Zeyna Niass, Madame Cham, de la part de sa fille, Maman euh, Mahmoud Niass. Happy à Maman Khadi de la part de ta fille chérie, Maman Jay et Kodja Khoudjaba. donc moom tam ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér c'est également de la part de maman Dieye euh, yónnee na message bu gudd gudd pour ñaanal la gudd fan ak wér maman euh, joyeux anniversaire. alors happy birthday à Bijou depuis AIBD de la part de tous ses collègues et toute sa famille joyeux anniversaire daa xam Bijou. ak sa dema ah. dema ci Bijou jaar aéroport Bijou joyeux anniversaire moom wax nga dëgg dem mi ngi ci anniversaire mi joyeux anniversaire di ko ko souhaiter de bonheur santé de fer prospérité waa aéroport yëpp ñoo ko koy souhaiter Bijou. happy birthday à toi Bijou yi ndeysaan danoo baax. Mhm. Mhm. joyeux anniversaire <laughs> à Mayram Sok. qui fête ses 18 ans. Euh, longue vie à toi de la part de ta maman d'amour, Neifal, qui t'aime fort. Euh, joyeux anniversaire à Alfie, notre Alfie d'amour, notre Alfie chérie. Tu nous manques énormément, Alfie. Longue vie à toi, Dundel, Dundel, Dundel, Alfie Félix, de la part de Leonardo, Léa, ak Monsieur Félix, ñoo lay souhaité. un happy happy birthday loo dund doyul Alfi on t'aime énormément de la part de toute la team Yeewu Leen. waay très bon anniversaire. très réactif ba léegi nii très actif nekk ci réseaux sociaux yi. nga bàyyi rendez-vous yi ñuy joxe Yeewu Leen nga naan maa ngi ñëw fu ñuy daje nag. <laughs> ana sama yére ak ana sama wàll. c'est l'absente la plus présente. elle est adorable. elle est adorable happy birthday à toi Alfie joyeux anniversaire à Ndeye Yacine yàlla na la borom bi may gudd fan wergu yaram ak borom kër bu baax macha allah euh, bëgg la yërëm la de la part de Eva joyeux anniversaire à Famara Sagna depuis la France euh, toute la famille te souhaite un très bon anniversaire de la part de Koumba Fall joyeux anniversaire à Fatim Diaw toute la famille depuis Guédiawaye te souhaite un très bon anniversaire c'est de la part de Baysal Joyeux anniversaire à Khadija Wassaba Keita. Toute la famille depuis Keur Massar te souhaite un bon anniversaire. Mohamed Seck Touba Keur Wele ah, anniversaire. du anniversaire ah. <laughs> bii anniversaire de. non faray bee ma bii dana ma rey. anniversaire porte am nañ photo bi ñu xool ko bu fekkee am nañ foto bi El Hadj Malick muy Mouhamed Seck Touba Kër Wele moom depuis màggalu Kazu Rajab bi la réer ay parents wam oh bon le message voilà c'est l'enfant bi ngeen di gis nii ci photo bi donc depuis Magal Kazu Rajab seen waa kër ñi ngi koy wër Touba la jóge boo leen ko xoolee xàmmee ko euh, yoruñu téléphone bi moom non plus mais bu ngeen ko indee TFM on va s'en occuper wala police bi leen gën a jege euh, wala mun ngeen woote donc le numéro est là 633 92 60 xale bi mi ngi tudd Mohamed Seck dëkk Touba Kër Wele depuis Magal Kazu Rajab la réer bu ngeen ko gisee ngeen woote au 76 633 92 60 numéro bi numéro ay parents am la comme ça ngeen dimbali leen ñu gisaat seen doom voilà euh, programme yëpp jàll na anniversaire yi jàll na. Euh,